bu njëkk dañu naan lii tax xar yi di cher soo ñëwee ci frontière bi état def koy taxé soo ñëwee ci euh, yoon yi police ak gendarmerie dañ lay taxé parce que dañ lay laaj yenn kii di la sonal soo ñëwee aussi au niveau des communes mooy point de vente yi aussi les maires ñoom tamit dañ lay taxé président de la république par l'entremise du premier ministre mu ne loolu noonu nan ko dakkal mooy que ne amul taxe benn taxe boo xam ne dañ ko teg ci wàllu xar loolu c'est suñu opérateur sénégalais yi nga xam ne ci biir réew mi la ñu nekk mais au-delà de de ça aussi dem ñi nga xam ne dañu jóge à l'étranger suñu ñëw ñoom aussi ñu bañ a am gàllankoor ci fànn woowu au-delà euh, de l'exonération des droits et taxes gouvernement bi aussi nee na nañu yombal dem beeg dikk bi parce que tracasserie yi dafa bare woon de par le passé mooy que ñi nga xam ne dañu indi seeni jur seeni ay camions parfois dañu doon am ay jafe-jafe en matière de contrôle soit police wala gendarmerie wala douane foofu aussi le premier ministre du baax arrêté bi nga xam ne génne na ko 18 avril passé mu ne lépp loo xam ne contrôle la nañ ko wàññi waxul ne nañ ko dindi parce que kenn ku ne ci yéen xam na ñiy indi xar am na ñeneen aussi peut-être ñu ngi indi leneen kon dañu ne nañ ko wàññi sans pour autant des contraintes majeures mais au-delà de ça aussi wax na ne nañu installé li nga xam ne moom mooy point de vente point de vente yi su ngeen ko déggee mooy fii nii ndakaaru li fi nekk ci ay foray motul pour que population dakaroise yëpp man ci approvisionné moo tax chaque année dañu jël ay point de vente yu bari aménagé ko aménagement bi nag bokk na ci def fa courant def fa ndox def fa des toilettes mobiles mais aussi et surtout accompagner leen en aliment de bétail parce que ñenn ñi dañu lay wax ne ñun suñu indee suñu jur à Dakar duñ ci mën a am dara wala ñu obligé jaay ko mu cher parce que dépense yi ñu def dafa bari dans ce cas d'espèce état du Sénégal jël luy tolloog ñaari junni ak ñaar téeméeru tonu aliment de bétail subventionné ko presque à 50 pour loolu noonu c'est pour que mu yombalal ki nga xam ne mooy jaay juróom su ñëwee au niveau de Dakar mu bañ a am yenn contrainte dans ce cas d'espèce aussi loolu dafa war a am njeexantal ci ki nga xam ne moom mooy le sénégalais lambda kon ñun suñu mission en tant que état ñaari niveau la soit dañu réguler wala ñu faciliter dans ce cas d'espèce nag la président demande à ce que ñu gën a faciliter que ñuy wax régulation facilité nag mooy pour permettre opérateur sénégalais comme étrangers à ce que mën a jaay dans d'excellentes conditions mais le sénégalais lambda aussi ak lu bursam mën di toll c'est-à-dire poosam nu mu mën di toll mën a am xar ci loolu nag premier ministre tout récemment effectué na visite bu am solo au niveau des zones d'attente par exemple Sandiara Touba Toul Sewekhaay entre autres ni ko premier ministre effectué tout récemment man ak mon collègue en charge du commerce àndoon ci tournée boobu man également effectué na tournée bu mel noonu en Mauritanie waxtaan ak autorité mauritaniennes yi waxtaan ak également opérateur mauritaniens pour que ñoom ñëpp ñu mën a xam ne am nay dispositions yu am solo yu état du Sénégal jël pour yombalal leen dem bi ak dikk bi à ce niveau aussi ñu santaat yàlla bu baax di rafetlu relation yu rafet yi nga xam ne am na suñu diggante ak suñu mbokk mauritaniens yi loolu tax aussi may invité kenn ku ne ci ñun à ce que mu xam ne opération tabaski bi su baaxee moom la su amee nu mu mel moom la su dee kenn ku ne ci ñun jël na responsabilité que dana def kémti lay kattanam am na njort que ne opération tabaski bi dana baax parce que du état kesi kesi kesi moom mooy gérer opération tabaski état acteur la ci waaye dafa am yeneen moyens yoo xam ne kenn ku nekk ci ñun ci la bokk su loolu jàllee aussi ñu rafetlu surtout yi nga xam ne c'est des missions yoo xam ministère de lévage mu ngi koy def ak ay services am particulièrement le secrétaire général et ses équipes def nañu la frontière au niveau de Kidira def nañu la frontière au niveau de Médina bi entre autres rien que pour s'inquiéter de la situation de l'effectivité surtout des des mesures yi nga xam ne jël nañ ko au niveau des frontières une façon vraiment de dire que wax dëgg fi yàlla fi ñu toll am nañ njort ak yaakaar que ne tabaski dinañ ko mën a def dans des dans conditions waaye il faut aussi le dire actuellement ci prévision yi nga xam ne am nañ ko mu tolloog huit cent dix mille moutons soo doon xayma tey tey ñu ngi ci cinq cent cinquante neuf mille moutons le 18 passé donc am na gap bu fi nekk mais soo ko comparé par rapport à l'année dernière on était à plus de aux alentours de cinq cent quarante mille moutons donc bu doon da nga koy xayma en termes d'évolution il y a une évolution positive de plus de vingt mille moutons yoo xam ne mu ngi disponible tey à moins onze on espère que dernière semaine bi nga xam ne moo des am nañ njort ak yaqin que xar yi dinañ gën a bari parce que on nous donne des informations comme quoi que chaque jour au niveau de Dakar il y a plus de 4000 moutons qui entrent sur ce plan ñu ñaan yàlla yàlla mën ñu may sutura ak kii pour que loolu mën a mën a continuer merci monsieur le ministre